bisub ku tedd kii ñuy séentu bisub seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla yóbbu te ñu weesuwaat ko te fekk ko déwén muy jëmm joo xam ne bu ñu demee ci alquran yàlla moo ñu wax kim doon yàlla moo ñu wax ne ba muy wax ak moom daf ko ne li ma la yónni ci kaw suuf gudd gàtt yërmande kese la wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin alamin nag bàyyiwut góor bàyyiwut jigéen bàyyiwut mag bàyyiwut ndaw bàyyiwut garab yi sax ak doj yi ak rab yi nekk ci biiram yiñ mën a jaxasoon ak yiñ ñu a jaxasoo kon bàyyiwul kenn du yónnentub aw xeet xeet sàngam du yónnentub réew sàngam ci ñépp la ko yàlla yónni boole ko mu ëndaale yërmande joo xam ne ji moom la doon dund ba nañ fi jógee bàyyi ko fi muy wéy am na bis ñu ne ko mushrikiin yi nga xam ne lu nekk teg nañ la ko tey nga yàlla mu faagaagal leen ñoom ñépp mu ne leen inni yàlla indiwuma fii ngir may faagaagalaate waaye innama bu'istu rahma yàlla dafa ma fi indi ngir yërëm jaam ñi waxoon na it bés bu mu dajalee mbooloo mu bari ya ayuha nnaasu innama ana rahmatul muhda man mii di wax ak yéen moom yonent bi moo doon wax du man mii moom yonent bi moo doon wax ne yërmande la ju yàlla may jaam ñi buñ ko xamee ak buñ ko xamut euh, yërmande ji nag buñ ko bëggee tënk ci lu gàtt fekkoon na aw nit defar ay bant tudde ko yàlla di ko jaamu yett nañ ay doj tudde ko yàlla di ko jaamu booba nit ñi amuñuy xel loo xam ne yaa ko liggéey ci sa loxo muy bant nga seet na nga bëgg mu mel ko nga def ko na di ko reyal ay xar di ko reyal ay ay gëléem di ko diis sa bopp te buy lakk munu fa jële boppam day lakkaale loolu ak nit a fekke wu wala loo yatt ci ay doj bu taw bi ñëwee ba walal ma ñëw mën na koo yóbbaale sayal ko kooku mënulut kenn dara foofu la fekkoon nit ñi lu nekk lu kenn mënut tudd gannaaw ña ko doon def am na si ñoo xam ne ay bokk lañ dañ leen di suturaal ngir yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye lu ne def nañ ko nag lu ne def nañ ko laata muy ñëw ak tooñ fees dell adduna bi mbewte ak kenn ku ci nekk nu mu ko soobee rek mu jëfandikoo ko ci digganteem ak jaami yàlla yi euh, xaq juy dox diggante nit ak mbokkam nitam réer mër ci diggante boobu lañ fi indi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko yàlla yónnee yonent googu nee naa nit ñépp la ab julit ak kurul ab julit ñépp ca buñ ko xamee ak buñ ko xamut mag ak ndaw góor ak jigéen ak yi ma tudd yépp mas naa jàng moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aaya boobu suñu borom di wax ci sóoti ibrahim ne seydna ibrahim moo doon wax ak yàlla di ko ñaan naa ko rabbi innahunna a kathiran min annaas fa man fa innahu minni wa man asani fa innaka gafurun rahim yàlla li ëpp ci ñi ma dajeel jamono dañuy yàq suuf si yàq suuf ku ko bëgg doo jël suuf di dëbb wala nga di ko taal waaye nit mi yàlla indi ci ko suuf mu nekkal ko fii boo ko yàqee yàq nga suuf si daal di cay tànn nag ne ko ku ma ci nangoo topp xamal na ci man la bokk ëllëg ku maandu ci man it xamal ne moom yaag mooma noonu lañ doon ñaan yàlla ñaan na yàlla loolu bokk bis Seydina Isa ne yàlla gaa yaa ngi nii in tu'adhibhum fa innahum ibaaduk koo ci teg mbugal mu metti fii jëm àllaaxira xamal ne say jaama waaye soo leen jéggalee moo gën moo ma gënal moom laay ñaan damay ñaan nga jéggal leen fa innaka ko yonent bi sallallahu alayhi jàngee yaari aaya yooyu dafa tuur ay xéewal ba nit ñi xam ko suñu borom yónni jibril ne ko demal ca muhammad sallallahu alayhi wa sallam laaj ko ba xam li muy jooy lu mu doon ba ko ci yónni kat moo gënoon a xam li muy jooy jibril agsi yonent bi leeralal ko ko na ko daa gis ñu ñaana ñee te ñoom ca moom keneen du ñëwaat ginnaawoon jibril dellu wax loolu suñu borom ndax ba muy ñaan moom dane ummati ummati yàlla waxuma sama bopp waaye sama xeet ñii ma fi fekk ak ñi ma fi fekk ñépp yàlla na nga leen yërëm jibril dem wax ko suñu borom mu ne ko soo demee ne ko inna sanurdika fi ummatika wala nasuuk na la wóor ne lu ma wax danaa ko def ëllëg ku ci nangoo topp ci sa gannaaw du gis lu koy naqare ëllëg Eh, moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne yonent bu nekk buy ñaan rek yàlla tegal ko la muy ñaan ci kanamam am na si ñoo xam nag dañoo lu lu ne lu ne bërxër rek ñu daal di ñaan yàlla lu ne ñokket jóg rek ñu ñaan yàlla nee na nag moom li mu war a ñaan lépp yàlla daf koy denc ba ëllëg mu tiinal ko xeetam bii xeet bi nag nee naa mooy doomu aadama yi rawati ca nag ñi nga xam ne nangul nañ ko waaye ñi si nanguwutit du ca xool kenn di ko xool bët bu dul bëtub yërmande ne moom li war a ñaan lépp day bàyyi ba ëllëg ba ñëpp ne ci ay tànk-tànk mu ñaan yàlla mu yërëm leen euh, dal ne nag ñaan googu nag ka ca gën a sañ yaakaar mooy koo xam ne kii dund na ba faafu limaale boppam ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi te ku cay limaale sa bopp dangay fexe ba doo bokkaale yàlla ci dara ci wax ci jëf ak ci pas-pas yoon yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam yërmande ji ko yàlla wàccee ci kaw suuf feeñ na sax ba ci ay noonam yi ko gënoon a xeex am na bis ñu ne ko in kaana hada huwa alxaq min indika fa amtir alayna xijaratan min alsama bi adabin lii ngay wax su fekkee noonu la waaye waaye tawali xal wala boog nga teg ñu loo xam ne kenn du ko mën a teggi yàlla ne ko lii ñuy wax nii dañoo xamul rek waaye li feeg yaa ngi fi feeg adduna yu dox ñu dina tudd yàlla duutu mbugal kenn lam noonu teg gaa yi duutu ko ci teg kenn duutu wàcce ay xal duutu wàcce ab taw duutu wàcce ngelaw luy rey nit wa ma kaana allahu li yuadibahum wa anta fihim wa ma kaana allahu muadibahum wa hum yastaghfiruun ku ci dellu gannaaw rek ne tuub na yàlla jégal ko kon bokk yërmande ji wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamiin saa su nekk day gën a firnde ba ci ay noonam sax yàlla duutu leen teg mbugalum adduna di tukkal adduna li feeg ñu ngi tudd muhammad te ñaata yoon lañ koy tudd ñaata yoon la ñuy ci àdduna bi ñaata yoon la ñuy liqaam ñaata yoon la ñuy taaya ku noddu liqaamut it ñaata yoon lay taaya ci buy julli tudd yonent bi sallallahu alayhi am na koo xam ne ba muy firi aaya boobu daf ne yàlla soreen jombante naa ak lool yonent bi la mujj a yónni te jamono des ba noppi yàlla di wàcce woon mbugal di ku mbugal di ko mbugal xeetu yonent bi gannaaw ndax yàlla da ko yónni rahmatan lil alamin wa nicmatan laa azaban wa niqma xeet yi jiitu woon nag kenn ku ci nekk lu ne kundung rek mu ne yàlla wan leen sa bopp ndax moom day xam ne li muy wax dëgg la wóor na ko ne su ko waatee wàcc ñu takk ko taxawal li ngay wax du dëgg moo tax mbugal mu wàcc faagaagal ñu bari daa yomboon lool danañuy gis ci mbirum sayidna nuuhin alayhi salaam fa kadabuhu fa anjaynaahu walladina maahu fi lfulki wa agraqna alladina kadabu bi ayatina innahum kaanu xawman amin ku bëgg a mucc na yéeg ñii yéeg ñan naña bañ ba doomam sax bokk ca wanaado wanaadaa nuuhun ibnahu wa kaana fi maazilin ya bunayya irkab maana wala takun maa alkafirin qaala sa aawi ila jabalin yasimunii min alma qaala laa asima al yawma min amrillah la ca topp topp ca bu yàlla ne suuf li nga am ci suuf li nga am ci ndox génne ko asamaan loo am ci ndox taw ko ndox dana kon ku andut ak ka yàlla déey rek fitna mën na koo jàpp waaye sayidna nuuhin sayidna huudin alayhi salaam it yàlla ne woon na ko fa anjaynaahu walladina maahu <clears throat> bi minna wa qataana daabira ma kaanu muminin kon suñ bëggee waxtaan ku bëgg a waxtaane yërmande ji yàlla ëmbal nit ñi jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ab jullit du des naafiq du des ku dul ab jullit te gëm yàlla menn mi ak lu mën a yor du des waaye rabi àll yi nga xam ne ñoom lañu dëkkal yenn ñu ngi di leen jaxasoo ñoom yenn ñu duñ jaxasoo ak ñoom it buñ la jàngalee na ci bi defoon ñoom dangay xam ne yërmande kese la fi ñëwee woon bu dee ñu ma jëkk a wax muy naafiq yi yàlla xamaloon na ko turu naafiq yu bari yoo xam ne du bu seen mu gis leen lu ëpp wenn yoon te su boobaa seen deret daganoon na naafiq mooy kan mooy njistal ci pas-pas rek ak ci jaamu yàlla gi waaye dara gëmu ko ci mooy koo xam ne day def li jullit yi def di wax li ñuy wax waaye xol ba nag benn tomb gëm yàlla nekku ca yàlla nañu ca musal yonent bi yàlla xamaloon na ko tur yu bari waaye teewul mu doon jëflanteek ñoom nit ak nit nam leen doon jàjja nag mooy daraan def li ëpp ci ay waareem day jàng aayaat yi nga xam ne day tëkku ab naafiq ñu ci baree bari nag gannaaw bi dellusiwaat nañ ci moom tuub tuubal yàlla seere la ko waaye mënoon naa ne diw mee naafiq la diw mee naafiq la waaye da leen kon yërmande ji day feeñ foofu may leen paso bañ mën a ko quoi waaye bu dee ñi nga xam ne yeneen diina lañ yore te bàyyi ko ci suñu borom ba mu leen fekkee ma diina daf leen fa bàyyi di dund ak ñoom di ñoom di dem seeni xew ci misaal buy ñu wéree mu seeti leen xew ya àndu tëj ak bokkaale yàlla ngénte walla céetal ci misaal wala jaale ji waaye nag foofu dañ fay seetlu loo xam ne lu yéeme la la mayoon ñooña mayu ñi nga xam ne dañoo dëkk ak moom di ay bokk te nangoo ñoo dugg ci lislaam ñooña moom da di tànn loo ñu dugg ci lislaam wala mu jëflante ko ñoom umirtu an uqatila annaasa xata yashhadu an laa ilaha illa allah wa yuqimu salaat wa yutu zaka waaye bu dee ñeneen ña moom dafa leen fa bàyyi woon ba am ba diina am doole ba am doole mu ne leen léegi nag ku bëgg a dëkk ak man dangay joxe gis ja muy galak soo dee joxe galak moom kenn du la songu jóge ci biti jullit ya lay aar ana fuñ mujj yaakaar naa ne dëkk boobee mu nekkoon di jëflante ñoom noonee yaakaaruma ne kenn ci ne ma nga fay yeewoo fi mu toll nii loolu nag mu yërmande ji ko yàlla yónni woon ci nit ñi mu yërëm ko ba xam ne ëllëg si biir ñee jóge ci ñoom ay jullit la ñuy moo ne lu jiitu loolu lépp jóge na makk dem dëkk bu ñuy wax Taif ndax sonaloon nañ ko makka lool mu yaakaar fa wallu lool dem ñu teg ko fa lañ ko fay teg ba mu jóge fa ci anam goo xam ne neexu sa nettali ci tar ñaari ñaari doj yu mag yu nekk makka ne ko su la neexee ci ndigalul borom bi ñu màbb ci kaw dëkk bii ñu far niw rëdd mu ne yàlla yàlla nga fi bàyyi ñii ndax ëllëg mën naa am ñu juddoo ci ñoom ñoo xam ne ay jullit la ñu doon yaakaar naa taifit kenn du fa doon leneen ab di ko fësal fi ñu toll nii ci jamono ji ñu toll yàlla nangu na ñaanam kon ab jëfanteem ak naafiq yi suturaaloon na leen digganteem ak ñi nga xam ne dañoo yor jeneen diine ju yàlla jóge ci yàlla ba muy laata am doole ji lislaam amit da leen faa bàyyi woon di maslaak ñoom ba lislaam am doole yilif mu teg leen ay galak ku ko nangoo fay baax na ku ko nanguwut fay nag nga seeti feneen foo jëm waaye dañu lay bàyyi nga dem si jàmm alxuraan di wax ak moom naa ko ci maandu gi nga am ku ñëw ci ñëw ñëw ne atte ma ak kii ate ko bu la soobee bu la soobutit nga yebal leen ca fañ yaakaar fa in jaauka faxkum baynahum aw arid anhum wa in turid anhum fa lan yadurruka shay'a waaye bokk yi bu dee wàllu jur gi la bu dee si garab yi moom ne woon na xare bu bu méttee méttee métti ba kenn dagg garab bu xare bi méttee metti ba ngeen tere nit ki sawara woo xam ne daf koy ñaan ngir togg ci añ wala bu xare bi méttee métti ba ngeen tere ko ndox moo xam ne bu ko naanu dee te kat ñoom lay xareel bu dee ci jur gi nga xam ne ñoom lañu yàlla booleel Shaddad ibn Aws nee na wattu na ñaar yoo xam ne mokkal na lu bari ci wax yonent bi waaye yooyaa ca raw nee na wattu na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mokkale na ci moom mu ne loo gis yàlla sàkk ko rek lu mu mën a doon ba ca yàlla noppee noppi naa ñaaw lu rafet lay doon ba faw moo tax su ngeen tiimee ab gàtt di ko di ko lewetal na ngeen rafetal nangeen koy lewetale ni ñawal la ngeen koy lewetale tam gaaw ndax mu gaaw a dee loolu yéen a mën a juróoy la waaye bu leen ko xor ñooñal tàmbali ba ci digg nga bàyyi muy fët-fëti déedéet na ngeen dawal seen loxo tam gaaw ta la ngeen koy leewatale ñaw ñaw lool waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam nee na am na jigéen joo xam ne ji euh, borom teraanga la woon baax lool la ko naroon a dugal sawara ba mu tindul ko ko bañ bàyyi ko du yóbbu ko aljanna daa mas a jël janaab mooy muus yeew ko joxu ko mu lekk joxu ko mu naan ba ab xiif ray ko kon li ñuy wax bëy daa gàtt wàcc jur gi la euh, muus moom sonal ca la ko yàlla àtteen kii nañ ko yóbbu sawara waaye yonent bi sallallahu alayhi xam na ne mën naa doon njuumte mu ne yàlla yàlla nañu ko yërëm yàlla yërëm ko ne am na koo xam ne yàlla àtte woon na ko ci dundam mu war a dem safaan ba waaye la ko musal moom itam dafa dimbale ci jur googu kenn bàyyi ma yooyu kenn koo xam ne mënul boppam dara ndax day dox ba agsi ci pindub teen fekk fa dawkat kalbu bu mar ba nga xam ne mëntata noyyi mi ngi àppar tiim na te tiim na teen bi waaye mënul dara ci teen bi mënul amut mënta jukki munta laxu kookee xool ko ba xam ne kii daa soxlam ndox ci njàngale yonent bi la jànge mu dindi dàll wam soloon aw bot wut ay xànc takk ko ba mën a duy ndox mu xëccal ko ndox xol ko mu naan ba man mu dem mu dem yàlla ne kii yoon moom jaaroon la ko wàññi mooy yërmande ju mu am ci jur gi te ci njàngal Yonent bi sallallahu alayhi la ko jëlee kon boog bu bisam ñëwee nañ xam ne bisub waaja dikk na ñiy wax di bind bu yàgg ba tey di wane ay melokaanam di ca jooy lu ko jar la ndax ñi yoroon ay bant ak i doj di ko jaamu bu lu woon yeneen bi feneen lañ jëm ëllëg la ca ëpp wàññiku nañ ci nekkam ba nim dellusiwaatee makka ñépp far naa waaye ñeneen ñi nga xam ne it fekku leen fi ci suñ jamono it léeg-léeg nga wax nga wax ko ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay melokaanam mu sukkandiku ca la ko wax dem seeti ko ci alxuraan ak njàngleem mu jóol ba tukki dugg ci diine kon leen lu ci nekk nañ koy joxe man moo koy rafetal ndax kay wax ma ngay wax dëgg waaye léeg-léeg ñu jox ko koo xam ne nañ ko koy wane mooy tax nit ñi foñ ko te fekk ka koy wax waxe wut nam demee dañuy wax ne cheikh sump di ko macc maccin wa dana tax sump wex te moo ne sump cosaanam wexut yàlla na yàlla dafa dëgg ak te fase fayal ko ba faw te xiir ñu ci tànk yam doon dox ndax yàlla moo ne woon mën na leen a gën a gaaw ay jéegu waaye xool leen fa doon jaar rek ngeen teg fa seen tànk laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasanatun liman kaana yarju llaha walyawma alaxira yaxfiru llahu lana wa lakum wa lisaa'iri almuslimina amin